yow ma ne sa yaay moo ni ma dangay toxu comme nag taxoo wax te man nettali moom balaa may neex boroomam wax ko yow laa bëgg a dégg wax boobu nan la demee. nijaay waaw. yow Nafi yow yaa ko takki woon. waaw te bir na ni la dugg bon. Mm-hmm. façon bi ñu ko yoree ci kër gi nag moom laa mënatul supporter parce que nijaay bi nga tukkee lu bari dafa xew sa ginnaaw Nafi. mais tu t'imagines pon bi nga xamanteni si man maa koy fay sama yaay jël pon bi teg ko ci kaw Nafi Nafi lepp luy tâche ménagère ci biir kër gi moo koy def sa fàtki ne jàppalewu ko ci dara ñu koy teg bépp façon métital ñu koy teg loolu nag mënatuma koo supporter et pour le bien de tout le monde j'ai décidé dem jëlal ko appartement pour ñëpp nekk ci jàmm. yow daal jigéen moo la jaral loolu. ma yëgal na nag benn mbir. gis nga nit day am kilifa na Nafi bu melone ni mu manone mel bin koy tak ci kërëm ga bu ñëw fi loolu wax du fi am Nafi fi nak li fi am yépp moom moko fi indi yow nak lima la mëna yëgal moy lenn bu na Nafi liggéey bi mi liggéey ci kër gi moom moo tax nga bëgg toxu ci kër gi yow kër gi moom mëno ko genn yow kër gi do ko genn tay do ko genn ëlëk wax ko sa yaay mu may dégg bu fekkee ni Nafi moo tax jigéen moo tax ngay yangar-yangari pour dem wuti neek kër wala kër go dëkk kër gi moom mënoo koo génn lu leer laa la wax. nijaay dégg nga li ma la wax. waaw d'accord mais Nafi bul wax loolu parce que Nafi taxul man ma ni damay génn. moo tax xëy moom moo ma xelal. ay Nafi moo tax waay. Mm, déedéet man kilifa laata dama mat kilifa pour le bien de tout le monde wax naa la ko léegi pour que ñëpp nekk ci jàmm moo tax ma décidé dem jëlal Nafi appartement pour que xuloo bañ a amati te nijaay naa la wax benn affaire gis nga sama yaay. bu fekkoon ni sama papa yor ko comme ni mu ñu comme ni ma yoree actuellement sama jabar ni eh. kon ñun duñu ñu màgg ba mel ni ñu mel. dafa war a xool ci loolu nag jël na fi daf ko ni doom ji mu jur man nag ma décision elle est prise. na fi dama koy utal appartement et puis surtout. mais yow pardon da nga rew yow sa sëy nday ak sa sëy baay nga naan ay sama papa bu yoree sama yaay ay ay ay sëy na fi ay na sa sëy na fi bii ngay jaarale sa sëy papa sa sëy jaay sa yaay sa papa da ko yor ci loolu bu rafet bu déggal ko am yar respecté ay mbokam motax nga mel ni nga mel na fi mu meloon ni mu mel gay jël sa say nday ci say baay diko ko ay say naf yow ko xamati nga leena ah. léegi comme yow jigen moom mo la jaral li jigen mo jar ngay wax sa say papa ak sa say yaay yow jigen amna na fu mu la yobbu yaangi deg dégg dama la wax ah waaw kon baax na kon baax na da ngay taxu jël nga sa décision kan da ngay taxu waaw ah, neex na mi ngi non wuy ma ñu yobbal la so demee ngay tam na fi di taccu rek so demee ngay tam mom muy taccu ñoro wal jamm en tout cas daal nijaay man sama kilifa nga moo tax ma. wuy ma wuy ma man new ma sa benn kilifa bul waxateeg man ay affaire kilifa bul waxateeg man ay kilifa boo doon bu fekkoon maay sa kilifa li ma wax da nga koy def comme nag jël nga sa décision bopp yow yaay sa kilifa bopp addunaa ngi sa kanam demal wut appartement bu la neex nga dëkk fa waaye li ma la ma xamal mooy tere mu të moom bàyyi mu gis rek. vraiment li xew metti na ma trop aada ñëw na sama kër wax na ma lépp waaye nag yaay góorgóorlu jéeg buy sëy mooy góorgóorlu lu ñëw dal ci kawam mu xam ne lool la góorgóorlu parce que aada dafa romb buntu kër yëpp ñëw na yow la bëgg la nag ba dof sama tante moom bul ma ko toppal Fatou ne moom waxaalewu ma ay mbiram dafa réew ba dof tegal ma leen foofu nga toog sëy sëy sëy la sa jëkkër dalaa bëgg tabara vraiment man kontaan naa trop parce que yow yaay sama première njëkke te avant ñu ma takk ba niñ ma takkee mbëggeel rek nga ma wan ak respect comme ni nga ko waxee aada moom man awma lu ma ko war a wax ndax fekk na ma fi ma war a fekk takk ma teral ma samay diggi nawle sigil ma te bi may takk tamit wax dëgg yàlla xam naa ñu toppoon ci ginnaawam ñëpp mais aada dafa bàyyi ñëpp ne man la kon bëgg naa sëy sama tante ne dafa jékki-jékki mel ni dama ko def wala dama ko wax bëggatuma teg bët ci biir kër gi te ma sañoon li ma aadama defal lépp bi may takk franchement ma ñëw ci kër gi damay sëy rek ba dee ndax sëy rek laa bëgg waaye nag mënuma ci dara mais gannaaw jot nga ci moom ba ñëw suma góorgóorlu woon deux dinaa ci teg quatre vingt ndax yow incha allah. xoolal ci ñun rek chéri. d' dañ laa bëgg ba dof. rawatina man mii togg ah. dëgg mais ni ma fekkee neex na ma de. gis nga. mais nag dinaa fi jaaraat. meru ma de. waaw baax na en tout cas daal li daal ndax gis nga donte ko fi ñu ma wàccee kër gu ndaw la ci appartement donc la mais nangu naa fee toog.

Modou Momo. yow kañ nga ñëw kañ nga commencé nekk àll. Sénégal am na ñoo sax nag. ah loolu naka la la. ah sant mais am na benn boy ma na de. Jamban ah Dada non kooku sama ma ci moom quoi mooy loolu. ah bu fekkee ma booy bi kay jox ma ko. waaw yow li nga wax est-ce que seetlu nga ko yow are you okay yow Dada même man ak moom. man lu ma sax ba yàbb yow war nga woo seexu quoi non yow sa mind bi am na lu ci nekk non yow dinaa la yóbbu hôpital quoi. non yow da ngay booy yow da ngay déggoo ne quoi. maa ngi ñëw daan sax dama am yow lan nga doon def sama kër waxuma la dara ngay jàppanteeg sama jabar. sa jabar moo réew ma wax ko i yow da nga dog gis nga ceci n'est qu'un avertissement.